نفسي وديني ثم لي والولاء ci ndigal sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru di xalifab sëriñ Basiiru Mbàkke ak mbooleem njabootub sëriñ Basiiru waa daayira nafsi wa diini ci lëkkaloo gu lëkkaloo ak daayira furkul mashuun di daayira yi lëkkale mbooleem sëti sëriñ Basiiru Mbàkke yi ñuy am mbégte di leen yëgal conférence bi ñuy amal àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weerub janvier buñ ñuy suba la màggalu poroxaan foofale ci péncum poroxaan te mu conférence ba naka nekk ndono li sëriñ Touba bàyyi sàmm ko ak tasaare ko lan moo ki suñu responsabilité ki fas yéene def boobule conférence nag di sëriñ Abo Mbacke Bassirou Mor modérateur bi di sëriñ Abo Mbacke bu sëriñ Mountakha Mbacke bokk na ci ñi fa nar a jël kàddu sëriñ lamin Mbacke maam Thierno Darou Marnaan sëriñ Khadim Diop sëriñ Cheikh Fatma bu sëriñ Moustapha Bassirou Mbacke sëriñ Fallou Mbacke bu sëriñ Abdou Hakim kon boog daayira Nafsi wa diin yi ak daayira Fulkul Mason daayira yi lëkkale sëti sëriñ Bassirou yi ñu ngi sàkku seen teewaay ci àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weerub janvier ci bu 21h jotee buñ ne suba la màggalu poroxaan ca pencum poroxaan